salaatu lazi fi kulli saarin wa fi safar xamaani ala maahin maal absar wa safar falaahi bi kawni abda rabbi xadimahu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa kër sëriñ Mame Mor Mbacke Dende yi ñu ngi fi nga xam ne mooy kër sëriñ Sam Mbacke ñu ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér nekk fi nga xam ni mooy Touba olom ga lu soriwul dala rond olom ga soriwul tamit li nga xam ne mooy jumaa yi Pape Diop li waral suñu teewaay file nag xam ngeen ni ñu ngi ci waajtaayu màggal gi ren nag ñu seetlu ni ak coppeeku dina ci am xam ngeen ni njabootuk sëñ Mame ak sëñ Sam Mbacke xalifaam ñu ngi daan fi nga xam xam ni mooy kër sëñ Mamor gi nekk ci Daaru Marnaan ci ginnaaw kër sëñ Touba gi waaye nag bi ñu gëstoo ci magi taalibe yi li ñu xamal daal mooy euh, ren jile li tax màggaliwun foofile mooy njabootuk sëñ Mamor gi dañoo am yéene yeesalaat kër googu li nga xam ne moo nekk ci Daaru Marnaan sëñ Modou xari Mbacké nga xam ne mooy jëwriñu sëñ sàmm nekk jàmbaar lool moom nag def effort ngir ñu mën a màggale ren jile fii nga xam ne mooy kër sëñ Sam Mbacké gi nekk fi nga xam ni mooy Touba olom ga bu fekkee danga ngaa jógee ci Dakar boo jaaree ci autoroute à boo ko jeexalee rek boo continuer boo ñëwee ba romb li nga xam ne mooy camp gendarmerie bi nekk fa file rond boo njëkk a jot rek da ngay jàdd sa droite boo continuer tuuti rek di nga gis table boobu bi la nga xam ne ñu ngi ci bind Dendey Tranga Kër Sëñ Sam Mbacké ci Touba Olom nga soriwul dara tamit li nga xam ne moom mooy jumaa yi Pape Diop bu fekkee tamit da nga jóge côté héliport boo continuer ba agsi ci jumaa yi Pape Diop boo xoolee di nga gis tableau bi soo jàddee rek gis Kër Sëñ Sam Mbacké gi ñu seetlu na kër gi bi ñu fi agsee gis nañ ak coppeeku lool li waral coppeeku gi la nag ñu ngi toog ak sëñ Modou Guèye bu ko defee rek mu andi nu ci ay leeral sëñ Modou bisimilah. waaw bu ñu leen nuyoo rafetlu seen liggéey fii ci biir Touba ñu ngi nuyu mbooloo mi nekk ci suñu ginnaaw ñëpp di taalibe Serigne Mamor Mbacke Dende ñu ngi fii ci Touba olom gi kër sëriñ Sam Mbacke Dende moom Serigne Mamor Mbacke Dende kër gi nag li ko waral ah, Serigne bi moo ko sàkkoon muy Serigne Sam defoon ko wàccaayu pour màggalug Touba ah biñ ko taxawoo nag. waaw ba mu yegg fii tey mu jiital nag jëwrinam ku ñuy wax sëriñ Mudu Xari Mbàkke nekk jëwrinam nga xam ne moo taxaw tey liggéey bi ba mu yegg si fii ñu fas yéene fi nag ren màggal fi dalal fi gani sëriñ Tuubaa léegi nag liggéey bi nag sëriñ Mudu tàmbali woon ko ci ginnaaw bu ñu tabaskee ba noppi mu ànd kook taalibe yi saa yu xëyee di fi yendu di ko taxaw di fi liggéeyal mbaar mi nga xam ne toll na ci 30 mètres ñu def ko juróomi kër yoo xam ne ay dalwaay la ngir gani sëriñ def fi beneen magasin bu mag boo xam ne fi la ñuy denc bagage yi moom boo xam toll na ci huit mètres ak bassin boo xam ne mën naa def fukki seetar ne ndox ak juróom-benn wanag yoo xam ne mi ngi fi yoo xam ne yëpp sëriñ Mudu taxawu na ko ngir lépp rek fonk gani sëriñ Tuubaa yi nga xam ne dañuy ñëw di màggal si sëriñ Mudu nag moo nga xam ne moo jëwriñu sëriñ Mudu moo jëwriñu sëriñ Sam Mbàkke ji nga xam ne ni moo taxawal sëriñ Sam Mbàkke fii ci kër sëñ Mamor Dende ñu koy wax kër sëñ Sam fii ci Touba Alom gi moo defee nag taxawaay bu rafet bu matale lool liggéey bu mucc ayib ngir lépp tarale ko gani Serigne Touba yi ndax moom dara ñëru ko lu may liggéeyal Serigne Touba lépp lu ko taalibe yi jox mu delloo ko ci liggéeyab Serigne Touba lii nag bi mu koy taxaw mënoon na ko woote woo taalibe yi ni ñëw leen ñu taxaw ko ñu defar ko waaye moom ba ci xale bu nekkee rek xam ne ren fii la ñuy màggale daa daal di sumb rek fas yéene mu àgg mu liggéey ko nag liggéey bi nag toll na ci lu gàtt gàtt ci liñ mën a xayma na ci huit millions yoo xam ne def nañ ko fi muy mbaar mii nga gis ak ventilo yeeg lamp yi euh, nañ koy wax di bassin bi ak wane yeeg magasin bi boo ko xayma daal lu gàtt-gàtt toll na ci 8 millions yoo xam ne sëriñ Mudu moo ko taxaw mu doon loo ne moo naaw woo taalibe yi ñëw leen ci ñu jàpp ci waaye nag defu moom daa daal di sumb rek nekk ci ba mu yegg si fi ba mu sotti te lépp jublu yi nga xam ne ñooy ñëw di màggal si di yëkkati seen àddee di ko joxe ci kër sëriñ bi mu leen koy delloowaat teral leen ko ndax moom li mu bëgg daal fas yéene wut mukk màggal gi ñëw muy taw moom mu nekk ci biir néeg ànd ak moom ci liggéey bi ah ñuy tawate mu ne nag loolu moom xalaatu ko loolu daal moom xelam mayu ko ko mu liggéey fi mbaar mu mucc ay mu toll nii ngir lépp terale ko gani sëriñ Tuubaa yi loolu daal moo waraloon màggal gi fii liggéey bu toll nii sëriñ Muudu taxaw ko depuis Tabaski ba léegi guddeeg bëccëg mi ngi fi di ànd ak ñun ñuy taxaw liggéey bi ba mu yegsi fii loolu daal moo waraloon tey ji fii ci kër gi ci Touba Olom gi jërëjëf sëriñ Mamor waaw li waral loolu nag moom sëñ bi dafa xam fi jamono toll ak xataayu jamono ji yitt yi bari na te jamono yii yëpp nawet bi doy na waar liggéey yu bari bari jafe-jafe yi bari na ci réewu taax yeeg fépp léegi nag sëriñ bi ba mu xalaatee loolu te taalibe yi tamit at mu jot ñu woo leen ci liggéey sëriñ Tuubaa lu mel ni kër gi ñu doon liggéey ci Daaru Manaan nga xam ne eh, sëriñ bi moo ci joxe woon digal sëñ Sidi Muxtaar bañ àggale ko ci sëñ Muntaxa mu gis taalibe yi sonn nañ jël nañ seen alal seen lépp def ko ci mu xool nag liggéey boobu bi mu jàllee léegi yàggut metti na ci taalibe yi mu yërëm leen mu ne lii daal da koy sumb rek fas yéene koo liggéeyal sëriñ ci kippaar gi nga xam ne fi la sëriñ Sam Mbàkke nekk liggéeyal ko sëriñ Mamour Dendey mu taxaw ko ba mu fii moo waral daal sant ko taalib mënoon na leen ko woo te bu leen ci woon nag taalib bi bu leen ci woon ñu jëf ci lañ ca war a jëf waaye yërëm na leen yërëm goo xam ne nii tax na moom daal woowut benn taalib moom daal da koy liggéeyal sëriñ Touba rek ngir gani sëriñ Touba yi ku bëgg a ñëw fii ci kër gi nag bu dee da ngaa jóge soow boo jaaree ci péage bi ba wàcc jël télé bi romb gendarmerie rond-point bi ngay njëkk a jot ci ngay jàdde sa loxo ndeyjoor boo jàddee sa loxo ndeyjoor am na table bu ñuy wax Touba Dendey Touba Dendey Dendey Teranga kër Serigne Sambaka ci jàkkee Pape Diop ku fi bëgg a ñëw foofu ngay jàdde bu dee da ngaa jóge ci route national bi boo ñëwee ba héliport nga jàdd wër rampoyo bi moom it da ñëw ba ci jumaay Pape Diop da fa fekk table boo xam ne ñu ko Dendey Teranga ñu bind ci Serigne Sambaka Dendey kër Serigne Sambaka Dendey moom daal foofu mooy bu dee da wàcc ca Daaru Manaan ci kër gu njëkk gaat boo jëlee yoonu alom gi boo ñëwee ba ci arrêt alom gi mbedd mi nga xam ne nii moo def directement jàkkee Pape Diop ba wàccee ci arab bi rek moo ñëw ba ci kër sëriñ bi ku fi bëgg a ñëw ren daal fii lañ bëgg baaxale màggal gi parce que dafay dalal gani sëriñ Touba yi bu neexee fi war a taxawee nag mooy li sëriñ bi santaane rek sëriñ bi daal moom li muy tere la ñuy tere fii muy maanaam warma ji daal mooy nga xam ne moo moo ñu tax a jóg sàkk fii yiw ak barke fas yéene fee liggéeyal sëriñ tuubaa lépp loo xam ne sëriñ bi mi ngi ko fi tere ci dëkk bi dañ ko fi tere mu mel ni mees col gu gàtt col gu xat wala col gu yaraa yooyu yëpp sëriñ bi da ko fiy tere moom daal li mu bëgg ku ñëw ànd ku yiw sàkku fi yiw booy dem sëriñ bi ñaanal la nga yóbbaale ay xéwal loolu daal moo waral fi ne dal bi waaw kon jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ci Info 7 TV ñu ngi leen di jaajëfal tey nag ñu defoon déplacement ginnaaw bi ñuy waajal màggal gi ñëw seet si njabootuk sëñ Mamor euh, bii di sëñ Sam Mbacké euh, jëwriñam ji nga xam ne mooy sëñ Moodu Xari mbàkke muy jëf jure ji nga xam ni Euh, taxawal na ko fii nga xam ne mooy Touba olom ga kër gi gis ngeen ko noonu ci image yi macha allah mbaar mi mucc na ayib lool bassin bi nga xam ne def nañ ko fi lu mu gàtt gàtt juróom-ñetti oto ndox mën na koo jël euh, fii daal macha allah ku fi dal daal yaakaar na comme niñ ko waxee rek déndey tiraanga ku fi dal daal da nga am tiraanga di nga am tamit tawféex ndaxte mucc na ayib lool. waa bi kon ñu ngi leen di jaajëfal baax di leen ñaanal ngeen màggal si ci jàmm ñëw fekk fi jàmm bàyyi fi jàmm incha allah jaa ngeen jëf. mu ne taxawaay bi fa tabaarakallaahu rafet lañ ko lool mu ne dolli nga yaakaaram it waaw dolli nga xelam it في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والصبر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مؤمنا النفر